asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Amdi Fall mii toog di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall muy kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyikoo ci moom jëm si mboolem murit yi ak képp koo xam ne kii rek yaa ngi nuy teewlu walla kàddu yi mën naa egg si fi yow li jiitu ci ay kàddoom nag mooy yeesal pas-pasam. ak yaakaaram ak njëbbalam ci du Modou Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu am liggéeyal ko sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak ña ko jiitu ñëpp mu def si lu kawe njortam di ñaanal njabootug sëñ tubaa gépp di topp ci gannaawam naka noonu muy sant ak di yeesal ay ngërëmam ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima Fall muy njabootug Cheikh Fall gi mu àndal liggéey bu màgg bii di leen nuyu te di leen sant di leen gërëm di fedd li eh, ak jàppam si ñoom ñëpp rek di nuyu taalibe yi fu nu mën a ne muy murit yi di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal sama borom na leen bali sëriñ bi bëgg lépp nu ma ne ko ni ko sëriñ bi bëggee te defe ko noona jataay bii nag sëriñ bi moo ko sàkk woon muy sëriñ Amdi Fall di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall li waraloon càkkutéef géet li mu nu si digal nu wax ko mooy mi ngi aju ci xew-xew yu bari yu fi xew ci ginnaaw fan yii ci ginnaaw muy loo xam ne dëppoowul ak lii nga xam ne moom la yoon wi baaxoo di doxe noonee muy kàddu yoo xam ne dégg nañ ko mu yaatu lool ci tur di si tudd aw turam ak di ci tudd turu Cheikh Rafal ak njabootuk Cheikh Rafal te moom muy jëmmi Cheikh Rafal toog yor baat bi te loola de bàyyi ko wut si moom yëgu ko joxewul ndigal la moo taxoon mu jàpp ni yell na mu yëkkati kàddoom gannaaw ba nga xam ne wax jooju lu si bari dem na ba àgg si jëwriñ ji sëñ tubaa ji di Cheikh Modou Mountakha wax ji àgg si mboolem njabootug sëñ tubaa gi ak njabootug Cheikh Rafaal gi te moom muy jëwriñu Cheikh Rafaal toogal fi Cheikh Rafaal toogal fi murit yëpp di ñagub yoon wi nag ndax Cheikh Rafaal moo naka jëkk moo doon ñagub yoonu murit muy xamle ni ñoo ñi nga xam ne dañuy tuddoo ni danoo bokk si kër gi wala danoo bokk si njabootug Cheikh Rafaal te dox tànk jéego yooyu nga xam ne dox nañ ko wax na ni ñoom dey tooñ nañ yoonu murit tooñ nañ sëñ tubaa tooñ Cheikh Ibra tooñ nañ murit yëpp te tooñ googee moom mii moo si jiitu ndax lépp lu nu wax mu jëm si kër sañ tubaa lu bokk la ndigal loolee ku ko def ku ne moom mii nga tooñ ndax mooy jëmmi Cheikh Ibra loola wallam la moo ko warloog moom mu bëgg a leeral nag murit yëpp moom fa mu nekk day wax ni moom li ko fi indi te bàyyiwu ko bàyyi ko fi weesuwut lëggeel sañ tubaa moom la Cheikh Rafal defoon diggam ak sëñ Touba jox ko boppam ba desewul dara bàyyi ab juddoom bàyyi àlluwaam bàyyi xam-xamam bàyyi darajaam bàyyi lépp di ko jox boppam sëñ Touba ne ko dan liggéeyal ko liggéey boo xamante ni bii kenn mësu koo dégg si taarix du si li jiitu woon sa yonent yaag nit ñu baax ña ni sëñ tubaa ànde woon ak Cheikh Ibrahima Fall wala ni Cheikh Ibrahima Fall toppe woon sëñ Touba mosee su koo dégg wala nu xam ko wala nu gis ko lu na ànd bu mel lam ko jural nag ñëpp xam nañ ko mooy mu dem bay Babil Mouridine rek yoon wii li muy rëy rëy ak li muy yaatu yaatu yaatu da ngay mel ni Cheikh Ibra dox doxinu Cheikh Ibra Fall ñu soog laa boole si yoon wi waaye loo mën a dégg keneen ku mu mën a doon doxin woo mën a dox wu wuuteeg doxinu Cheikh Ibra da nga waroo ak li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëgg ndax lu Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall jëfal Sëriñ Tuubaa rek Sëriñ Tuubaa sant na sa gërëm na te nangul na ko ko te mosuñoo dégg fu ko Sëriñ Tuubaa aayee dara wala mu yedd ko kon la Sëriñ Tuubaa bëggoon Cheikh Ibra mu sa loolee rek la newoon te boolewu ko woon ak dara da ko doon wax ni ko bëgguma na ragaluma sawara yow rekk laa bëgg féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féet ak yow man mi la xam jox ko ak dundam jox ko ak yëngutoom jox ko ak dalam jox ko addinaam jox ko àllaaxiram kooka nag amul jotug di jëf lenn loo xam ne wuute na wala waroon na ak ndigal yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci Serigne Touba tey jëm ci murit yi kon sëriñ Amdi Fall wax ne li ko fi bàyyi moom mooy lëggéeyal sëriñ Touba li ko fi bàyyi mooy ndigali moo Modou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ tubaa lépp lu sëriñ tubaa bëgg muy Cheikh Modou Mountakha loola mooy ak bëggam lépp lu sëriñ Mountakha jublu loola mooy ak jublam waaye lépp lu sëriñ Mountakha wan ginnaaw na xam ne sëriñ bi du mooyu na ko te dootu ko geesu ba mukk seddi na loola mooy kàddu sëriñ bi boo ñëwee fii tubaa xam ne sëriñ bi mi ngi si ndigal li ko sëriñ Mountakha jox Baye Fall yi amuñu jotuk nekk di wëndeelu wala ñuy taxawaalu wala ñuy dugg lu seen yoon nekkut bokk ci yoon wi nag sant faal mayut kenn cër bu tax mu mën a wax ci turu yoon wi ndax Seera Faal dafa am lu mu nu faggul loola jamonoy Cheikh Modou Moussa Mbacké ba sëñ Tuubaa su suñuy bët Cheikh Ibra Faal moo waxoon sëñ Modou saa Mbacké ne ko toogu gii de boo ci toogul kenn du ci toog ne ko sa baat dong la ñuy déglu sa kàddu dong la ñuy déglu ba tey jii ku fi mag ci njabootu sëñ Tuubaa rek yaay toog jataay boobee te loo wax murid yépp sa la ñuy tënku jàngaleem Cheikh Ibra Fall moomee nag segam moo dox si kër Sëñ tubaa asamaak fii mu bàyyi koo di woon kër Cheikh Ibra benn baat moo am si kër Cheikh Ibra mooy baatu ki nga xam ne moo fi toogal Cheikh Ibra tey muy Sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenn yàlla suñu borom yàggal ko fi kàddu kaddu googi nga xam kàddu guy jib ci turu yoon wi yaa xam Fall nga sant wala noo bokke ci Cheikh Ibra du cagintug ni da nga saa bokk tax nga jàpp ni am nga sa kaddu wala am nga baat boo war a wax baat bi benn la Sëriñ Amdi Fall la ko moom ndax mooy maam Cheikh sëriñ am ni nag si li sëñ Touba digle li sëñ Muntaxa tënku rek la tënku si loola rek la ne kon képp ku dem fi barab di jàpp ni da bokk si njabootu Cheikh Ibra ndax faal nga sant ne ab Baay Fall nga tax nga jàpp ni war ngaa wax si turu yoon wi da ngaa juum sëriñ bi nag nee na loola mayu ko ko kenn bay ba bay mënatula seetaan kenn di doxe noonee ndax yoon wi la si sëriñ bi fagg woon ba léegi daa bàyyi woon léppam dundam gépp mu jaayante ko ngir yoon wi taxaw ba mel ni mu mel kon kenn du jóg di gone rawatina di si dox doxin woo xam ne danga naan nu ma si neex laay doxe sëriñ bi neen ñoo ñii nga xam ne ñoo doon wax sa bis boobu nga xam ne moom la moom la moom la ku jigéen kooku doon woote nee na musu faa yeble musu saa digle dara kàddoom musu see jóg def na ko ni ko sëñ mun taxaa def ni sëñ mun Muntaxaa def ay da Diallo noonu la sëriñ Amdi Fall mi def Aïda Diallo amu si ak yàq amu si ak defar te bu amoon ndigal ci saafara loolee moom mi dana ko saafara waaye day di ndigal lay teewlu moom dégluwul lu dul ndigal soxlawul jëfe xelum boppam ndigalu sëñ Muntaxa rekk lay teewlu sëriñ bi kam mën a jëflanteel mooy ka tënku ci ndigal ndax ayda Diallo moomukat kat ñëpp maase nañ gis ni sëriñ Moodu Muntaxa woo na ko ba mu ñëw mu digal ko waaye ñëpp seere nañ nit la ko sëriñ Muntaxa digal da koo sànni si àll ba lank ne du ko jëfe kon képp ku di murit rawatina nga di Baay Faal ngay suuxat lenn lu jëm ci Aida Diallo dafa mel ne li sëñ Tuubaa bëgg yow bëggoo sa dara dafa mel ne li sëñ Muntaxaa joxoñ yow jubluwoo ko te ku jubluwul li sëñ Tuubaa bëgg jubluwoo li Seex Muntaxaa bëgg kon sëriñ Amdi Fall mii di Seex Ibrahima Fall wan na la ginnaaw ba faw te bokkoo si moom laaloo si moom si lenn sëriñ bi li muy digle mooy li sëñ Muntaxaa wax li sëñ Muntaxaa bëgg nañ ko def ndigal li lenn rekk la muy sëñ Muntaxaa ko yor di ko joxe la mu wax it ñëpp dégg nañ ko koo kii nag doon woote bis boo bii tënkuwut si ndigali sëñ tubaa ndax sëñ tubaa mii sëñ muntaxaa woon na ko wax ak moom mu lànk ne du ko def kon kooku féttéerlu na aw na yoonu boppam ana koy tuddoo murit nag dem naan da ngay da ngay teew si bisam ba di sa jël kàddu ba di sa wax si turu maam Cheikh Ibrahima Fall te jàpp ni ab sët nga wala ku bokk si kër Cheikh Ibrahima Fall nga am na ku wax ba tudd ni biir néegam ay photo yu nataalam la fa def te dana ko def sa mbedd ma ña nga xam ne jël nañ kàddu si bokk si njabootuk Cheikh Rafaal ne ñu sant Fall lañ seeni i baay di bokk si njabootuk Cheikh Rafaal ñu jël fa kàddu wax si turu Cheikh Ibra Fall te Cheikh Rafaal nekk nii te ñëwuñu tàgguwuñ ko waxunoo moom digalu leen ko santu leen ko ñooñee tooñ nañ sëriñ bi sëñ bee ko waxal boppam tooñ nañ ko te am na si lu ko naqari te buñ ko tuubut dinañ dajeeg lu leen lor nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy ndigali Cheikh Modou Mountakha yi nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy njàngaleem Cheikh Rafaal ma diggam ak sëñ bi soxlawul leneen wootewul leneen am na ñoo xam ne ñi ngi woor jël ay sabar di wër ci dëkk bi di teg nataalu maam Cheikh Ibrahima Fall naan ku gëmut kii di wax wax ju tegg ñàkk teggin wax ju bon a bon di ko wax naan ku gëmut kii nangam ñooñee am na ñooñee gis nañ leen ñëw nañ fii fi sëriñ bi ba wax leen ko ñoom nag loolee ñu nekk nañ ko bàyyi wala buñ ko bàyyiwut waxtu wu ñu ko gisatee sëriñ bi joxe na ndigal ni nañ te jëflante ak ñoom ba nu xam ne ñoom li ñuy def bokkul ak dara dara dara Cheikh Ibrahima Fall ak aju si Cheikh ab Baye li nga xam mooy jikko yu rafet lañ xam si moom Cheikh Rafal makaarimal axlaax la tëgge yoonam wii ab Baye Fall day yiw ab Baye Fall day day day day sell ab Baye Fall day jub ab Baye Fall day day day tabe day nangoo liggéey ab Baye Fall day déglu ndigal te du juyoo moom mukk na day bëgg ab sëriñam yaakaar ko te du ko booleeg dara ku bëgg sab sëriñ nag doo ko teg jàkkaarloo moom di yëkkati kàddu yi tegginuwul sax mu di ko dégg loolee bokkul ak yoon wi nga xam ne yoonu taalibe la keneen ku mën a doon nag segam ñi sant faal lan la sëriñ bi bayatu mayut loola astima keneen ku mën a doon tey tuddoo yoon wi ndax damaa waxoon ni sant faal taxut nga am baat si kër Cheikh Ibra baat bi benn la te sëriñ am dee ko yor loola Cheikh Ibra moo na ko faggul képp ku ko bañ xamal ni bañ nga li Cheikh Ibra indi bañ nga li sëñ Tuubaa suuxat te loola boo ko bañee génn yaa génn sa bopp si yoonu murit doonatoo ab murit kon sëriñ bi nee na nañu delloo si xel yi bu baax nañu delluwaat si li nu sëriñ bi jàngale sëñ laa Lahat daana wax ni sëñ Tuubaa daana leen digal ne leen saa bu ngeen demee ba melaw jamono bëgg leen a yóbbu si boppam yéen delloo leen seen bopp sa yàlla si saa si te bu leen ko waaj dafa mel ne melaw jamono nag la ñu toll fi mu ne moo bëgg fab bi nit ñi ni am koom am xaalis bu fekkee ni dangaa jëm si xaalis a leen fa yóbbu mën na noo amee feneen xaalis fu foofa mën na war na noo mën a sàmm seen ngor war na noo mën a sàmm seen juddu bu rafet boobu war na noo mën a sàmm njàngale mi ñu leen jàngale war na noo bàyyi bokk yi ñu bokkal Cheikh Rafal nga xam ne ñëpp daw nañ wuti ko walis ñuy dem di tuutal seen bopp si loo xamante ni si boo xamante ni si du seen wàll du seen cër képp koo xamante ni kii nag yëkkatee ti nga kàddu wala nga doxati si wàll rawatina sax si wàll bu jëm si Aida jàll wala ku mu mën a doon lu wuuteeg ndigali sëriñ bi sëriñ bi nee na su boobaa matuwaay yi muy jël mooy dana la teg si aw yoon ba nga xam ne yow dëppoowoo ak li sëriñ bi bëgg ndax kat sëriñ bi joxe woon na ndigali nu woo procureur ba mu mu xam ne tooñ nañ yoon wi mu woo procureur ñu jëflante ak ñoom waaye loola àgg nañ si Baye Fall yi duñu sax xaar loolee kon nag na nanu xam ne sëriñ bi li mu bëgg mooy nanu teg yoon wi fa mu fa mu war a nekk nañ nañ nañ ko suuxat te xam ne puso bi warta réer mukk di réere si ñun rawatina si moom du ko seetaan mukk am xelam du ko du ko seetaan dooleem du ko fay aw fanam du ko ko baye lu lu mu jar dana ko si def te joxe na ndigal képp ku mën a doon si réew mi nga dox ak bitim réew nga wax si turu Cheikh Rafal wala nga dox ci turu Cheikh Rafal lu wuuteeg ndigalul sëriñ bi sëriñ bi nee na boobaa jël na matuwaay yoo xam ne danga xam ne dugg nga ci loo war te dugg te su boobaa loola si fekk rek loola yaa ko teg sa bopp sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin faal amin amin amin faal amin amin faal jërëjëf faal